tey dañu def ben ndaje euh, boo xam ne dama wo ñepp ñu yëngatu ci transport aérien manam roplan li muy yëngatu képp ku ci nek dama la woo pour ñu euh muy entreprise ba nek aéroport yor ay chariot muy entreprise buy def fret manam marchandise ci avion muy ki exploiter aéroport muy kay yor avion yi melni Air Sénégal mbaa transfert, mbaa Arc-en-Ciel ñooñu ñëpp dañu daje ak service yi ma yilif pour ñu xool naka lañ leen di gunge ci jamono ji nga xam ne mbas mi dafa indi euh, ay tolof yu rëy ci wàllu koom-koom euh, bi ci njëkk nag mooy ñu fàttali euh, liggéey bu mucc ay boo xam ne sunu acteurs yi def nañu ko ci weer yi ñu passé ba tax Sénégal nekkoon ci wàllu aéroport aéroport bu jiitu ci Afrique sowu jant lolu dama leen ne sànq loolu dakkul dañ koy wéel dañ koy wéel moy ne nañu dolel Air Sénégal ndax Air Sénégal moy bopp yëngatu bi ñuy def pour Sénégal nek ëpp waye tamit nañ fi taxawal li ñu naan centre de maintenance au métier aéronautique manam bërëb boo xam dañ fay tagat lepp lu jëm ci walu roppalaan muy pilote muy personnel de bord muy personnel navigant lolu dafa nek lo xam xewlu mag la pour sunu ndaw ñi ndax day tax Sénégal am xam-xam Sénégal xarañ ci walu euh, transport aérien ñaareel bi aussi bi gunge Air Sénégal moy li ñu centre de maintenance au métier aéronautique muy avion bu pané fi ñu toll tey tey bu paanoon tey koy bitim réew pour euh, saafara paan bi waaye buñ ñu centre de maintenance day tax avion yi nekk Air Sénégal yépp ñukoy koy fi fii tamit avion yu joggé bitim réew mëna na ñëw Sénégal di fii euh, ñu fi leen defaree loolu lu muy jur ci comme comme lu rëy la ndax bo xolé tey ci dépense Air Sénégal yi bo xolé chapitre bu jëm ci walu defar avion chapitre bu rëy la kon bu féké centre bi taxawal nañu ko Sénégal ba ñuy defar sun avion yi fii loolu day jur comme comme bu rëy rëy loolu aussi euh, njëriñ la ci comme comme réew mi njëriñ la aussi ci xeyu euh, xalé donc ëbu Air Sénégal compagnie nationale centre de formation métier aéronautique way tamit euh, centre de maintenance way ñu bolé tamit lo xamné dañ ko tuddé Aérocity té amagul ci réew mi té ñu fas ci taxaw Aérocity moy bo démé aéroport yu mag ci aduna bi dafa am comme comme bu rëy rëy ba fa nek ndax am entreprise ya fa nek am également commerce ya nek donc lolu tamit AIBD euh, sant sant naa mu baral liguey bi pour mu mën taxaw way waxtan nañ tamit li jëm ci walu euh, redéploiement Air Sénégal ak euh, AIBD manam fexé ba buñu génné ci li ñu nek Covid 19 ñu xol naka lañuy fexé ba suñu aéroport nek ci aéroport yu jiitu loolu nag dafay laj liguey ndax kat comme bo xolé àddina bi ñëpp le mbass mi dalandoo buñu ñu ci mbas mi ak jamm bo deful ndànk xëccio bi dina dina bar euh, concurrence bi manam jongante bi day am ci diggante entreprise nek fi Sénégal ak yi ñuy wër way ak entreprise nationale donc loolu dafa laaj nag ñu fagaru donc motax tax wax entreprise ñi andal yépp ku nek nga tàggat say ay ndaw tàggat ay say euh, personnel pour que ñu mëna traverser li aussi relancer secteur bi ci relance boo xam mucc ayib limay may daanele mo jëm ci climat social waxtan nañ ko également pour wax ni euh, mébétu njiitu réew mi le président Macky Sall moy ñu fexé ba ñaar yi mëna a bi ci njëkk moy ñu fexé ba entreprise ñu euh, aar leen waaye tamit aar tamit liggéeyukaay kay ñaar yu ñuy ànd mo waral fonds bi nga xamni muy fonds ñaar téeméeri milliards Sénégal lëkkaloo ak banque yi pour euh, jéglél ko entreprise ñom ñoom ñu secteur aérien e nak amna amna ay tiitaange yu ñuy am ndax ñom dañu euh banque yi yéex

danaka avion moy Sénégal en miniature bo jëlee avion kay def tourisme mu ngi ci biir kay def artisanat mu ngi ci biir kay togg mu ngi ci biir kay yor euh, formation mu ngi ci biir kay def navigation nek ASECNA mu ngi ci biir chauffeur bay indi euh, passager bi kërëm ba aéroport mu ngi ci biir donc dafa nekk secteur bo xamné bu taxawé secteurs yépp dañuy dañuy loof kon moo tax vraiment euh, may ñaaxaat ñi ci nekk leen wax ñu gën a góorlu pour que lii incha allah bu ñu ko traversé ak jàmm suñu réew mun a am place bi nga xam ne mooy place ci Afrique sowu jant nam nekk ëpp ci jiitu ci Afrique. Sénégal euh, njiitu réew mi jox na leen euh, ñeent fukki milliards juróom yoo xam ne jàppale leen ndax Sénégal ñetti yi rek na ñàkk ñaar téeméeri ñaar fukki milliards 20 milliards yoo xam ne ñàkk na ko chiffre d'affaires te bu ëppee ñetti weer gis nga nu muy toll donc loolu nekk na loo xam ne lu am solo la. kon Air Sénégal mom, vraiment ku ñu jàppale la ci moment bi pour que mu mën a euh, taxaw pour que sunu ëpp ñu mën ko jot ndax réew moo gis pour mu am ëpp aérien il faut que il faut que mu am compagnie bu mag am aussi ëpp aérien maanaam aéroport bu am dolé, ay aéroport régionaux yu am dolé. waaye tamit lépp lu wër ci aéroport maanaam centre de maintenance boo demee tey Casablanca la tax Royal Air Maroc am dolé. c'est parce que Royal Air Maroc la waaye aussi ëpp Casablanca Bo démé France parce que Air France s'engage nga fa par aussi Roissy Charles de Gaulle s'engage. nga fa Bruxelles parce que Bruxelles Airlines s'engage nga également ak aéroport de Bruxelles donc lulu il faut que nous bay ci donc motax il faut que nous liggé ci ñun ñëpp pour donc Air Sénégal buñ ko jappalé c'est parce que dafa bok ci moteur yi tax Sénégal mëna nek ci ñi ci transport aérien